woo mbokk mi nga xam ne moo nekk ci buumu jokk bi salaamaaleykum. borom kaa ñu añ. Hmm? kaa ñu añ. damaa woor. ñun démb waa bi léegi añ ñëw laa la wax ni. waaw damaa woor. ah da ngaa woor ok d' accord mais yow sa kanam ñu koor de. bal tooñ. <laughs> non dama mais kon leen di gërëm bu baax. xam nga xam nga xam nga soo xam nga soo tàmmee liggéey bi comme on dit. waaw waaw waaw. munoo mel ni pâté wele rek soo wooree commencé damm loos di rey baat. <laughs> waaw te da ngaa ne gaa yi damm seen loos yi. waaw. <laughs> mais fooru fooru France nag moom dafa neex quoi parce que gudd na mais dafa neex quoi uh-huh. mais peex mi mu ngi fi quoi peex mi moo ñu xaw a may jàmm tuuti quoi mais gudd na trop quoi parce que ay vingt une heures euh, comment dix vingt une heures la ñuy dog presque léegi. ah d'accord. waaye sa waay yaa ngi jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax naka naka foofu. waa ñu sant yàlla bu baax ñu sant yàlla bu baax. nan nga jàngatee li nga xamante ne moo xew ni ki dem ci Sénégal surtout gaze bi nga xam ne gaz nañ ko Ousmane Sonko ba jamono jii nii euh, nee nañ mm. euh, wér-gu-yaramam gasax na lool ba mu nga urgence ci suma assistance ak itam. mbedd mi nga xamante ne ni ki dem ndaw yi jël nañ ko génn ci manifester waaye manifester googu itam ndax du pour wane ne nguur gi li ngeen di doxal injustice la moo tax injustice googu ñun daan nañ ko xeex. mais c'est man waxoon naa la ko fi nga ne ma nga ne ma ñëwaat nga yaa ngi ma dama waxoon pare ma génn nga ne ma ñëwaat nga. <laughs> yaa ngi rappelé baat boobu. waaw ñëwaat nga. waaw ah man la man du ma dellu ginnaaw ci li ma waxoon. naa leen gis nga gis nga Sénégal. Mhm. amuñu président boo xam ne dafa nekk président homme d'état ñun président politicien lañu am. Mhm. te boo buggee politique yor réew mënut nekk réew na ko koy yor ci république nga yor ko ci dëgg ci fulla yor réew mi ci jàmm ak salaam nañu avancé ñu liggéey réew mi mais politique jotee nga dem politique yi bu liggéey jotee nga dem liggéey mais Sénégal ñu boole politique ak président mënut a nekk. mënut a nekk man nga est ko ñu taba ba nga nekk liggéey moo la desee à part parce que su su nekkee yaa ngi liggéey. mais loolu moo war a am Jérôme loolu moo loolu moo war a am ci réew mi loolu moo war a am ci réew mi Macron mii tey bi mu nekk président France fii tey bu liggéey jotee bu président jotee day nekk président. bu politique yi de mu dem politique yi. Mhm. ndax loolu mooy tax réew mi avancé mais boo xoolee ñu ne la def na fi lii Macky Sall moo fi def lii Macky Sall moo fi def lii loolu Sénégal moo war a xewee ci loolu. Mhm. ay BRT yu kenn xam loolu la ñuy du ndam loolu naka la war soo soo war def la yaa a def <laughs> yow ci war am rek jeex na mais defoo ko il a pas fait. Mhm. banque mondiale moo lebal suñu xaalis nga leblee liggéey moom. mais li mu war a mu nekk homme d' état homme buñ koy xaar biñ doon gis Abdou Diop biñ doon gis Senghor biñ doon gis monsieur Abdoulaye Wade mais boo fa bëggee nekk mais un président politicien loolu réew mi du mhm. ñi lay ñi ngay bëgg ak ñi ngay bëgg ñooy ñooy am parce que ñii da ngay nekk say parti lañ bokk nekk ay jàmbur ci yow Jérôme. Mhm. yaa ngi dégg parce yi lay tëj bàyyi au pouvoir. Mhm. moo andi moo andi président ba xam ne politicien la. loolu mënut a nekk mënut a yor réew nañ fekkee nag jàppale sama waa ji Sonko vraiment il a monté le voie nekk un nom boo xam ne ku ko jàppale réew mi avancé man de vraiment je suis content de Ousmane Sonko il a bien bien bien montré ne ko Macky sàll mhm. sa gàtt sa gàtt mu ne wot nii mu ngi nii woon naa ko boo jógee dal sama kaw booy dañ dal sa kaw Sénégal dañu bàyyi Ousmane sonk ak moom de ndax français yi ngis ñi tey jii benn bët lañ desee mooy Sénégal benn bët bii la Sénégal lañ lañ français yi ci Afrique. te mooy seen bakkan ci lañ ko gar amul lu mu leen jaral nag ci àdduna ñun ñi nekk fii xam ne fi xew tubaab yi bëgguñu ñu seen intérêt la ñuy daw ci ñun seen intérêt doo la ñuy faral la ñuy la ñuy ànd ak ñun su ñoom seen intérêt la ñuy ànd ak ñun kon ñun ñun ñu yeewu nag nekk ak ñoom seen biir xam ne fi xew mais Sénégal bëgg nga gis tubaab bu ko war fa for bon na fekk tubaab moo la gën yow yaa sax xool mhm. mais yaa sax xool soxlawul sax gis boo leen àndoon ba nga wàcc aéroport Paul de Gaulle fii tubaab dootu la xool dootu la sax faale comme day lay def ñun sénégalais ñuy xeeb suñu bopp di topp nationalité ñuy toroxal ñu war fonk suñu réew nekk ay patriote bëgg suñu réew jàppale suñu réew jàppale ko avancé jamono bi man nee naa la même bu doon ab ab buy taxawal sax moom laa gën a bëgg que nasaraan bi taxaw sama kanam mm-hmm. donc bi tëdd ci mbedd mbedd fu Dakar Ndiaye moom laa gën a fonk xool tey ni Dakar Ndiaye ni mel bu ñu la ko wone télévision ngay jooy ay immeuble yu taxaw ci suuf nga gis ay ndox di taa ci biir dëkk bi nga taxaw immeuble boo xam peut être plus de cinquante milliards mu taxaw wala plus de cent millions mu taxaw te moo boo xoolee fi ndox fi immeuble bi taxaw lépp ndox mu taa la. Mhm. nga ne réew maa ngi avancé xool ci rek ni mu rafetee ni nga gis kër yi immeuble bi rafetee mais est ce que gis nga tali yi baax. Mhm. foo dogg poussière baax lay bëgg rek. nañ jéem a xool suñu environnement bi defar ko defar réew mi defar Sénégal ñu avancé s'il vous plaît. Mhm. man de jumaa laa jógee damay ñaan yàlla yàlla yàlla Sénégal defal jàmm Sénégal. ñu am jàmm Sénégal ziyaara sama mbokk euh, chrétien yépp mm-hmm. di leen ñaanal yàlla yàlla di jàppale seen koor ngeen nekk yàlla ñaanal Sénégal jàmm ñëpp bokk ko ñun ñëpp Sénégal c'est un pays de la paix c'est un pays de la teranga dañ jàppale Sénégal Sénégal avancé zéro ba léegi di la sant booy <laughs> bi am na na solo lool ah, di ko di bu baax xam naa nag li ñu jore ci waxtu léeg mu mat ah ndax Pathé moom mu naan daa war a dem julli ji waaye Pathé xam ne da ngay dem julli ji waaye rek may ñu ñu jeexal émission bi ah, ñu jël mbokk mi nekk ci buum bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na ngeen def. maa fi dañoo bëggoon participer. ayca bismillah fu ñuy wootee. ah maa ngi leen di woowee depuis Suisse. Suisse. waaw. naka waa Zurich waa Genève. Oh, <laughs> waa Lausanne. ñëpp ñoo ngi ci jàmm. ñoo ngi ci jàmm. ayca bismillah ci waxtaan wi. waa thème bi lan la parce que man dafa am na am na chaîne bu may jàpp ni deux ak euh, je pense que yow yaa sol waaw yaa ngi en direct ci euh, ci 2A TV émission bi ñu naan seen kàddu ñu jël jag jël kàddu gi jagleel ko mbokki internet yi tey nag li xew ni ki démb Ousmane Sonko mi ñu daal di gazé ba jamono ji nag euh, moo nga ndax yaram moom dafa daal di euh, gasax waaye itam ndaw yi nga xamante ne génn nañ xeex li nga xamante ne moom la ñu jàppee injustice bi nga xamante ne teg nañ ko Ousmane Sonko injustice boobu lee ndax jamono ji waruñu de def taxaw seetlu ndax su fekkee ndaw yi dañuy génn di xeex li ñuy wax injustice ndax ndax injustice boobu léegi teg ko Ousmane Sonko duñu ko rek daal di gën a xoolaat su nekkee justice mooy tege injustice donc tey loolu la ñuy daal di waxtaanee d'accord euh, man dama bëggoon tuuti rek euh, ñu def d'abord la part des choses sëriñ bi mhm. parce que man damay yaakaar ni ousman Sonko euh, Mame Mbaye Niang la amal affaire affaire ñaari civil lañ mhm. ñaari civil bu ñu jotee mhm. lan moo ci indi war a yàq war a taal war a li am démb yépp Sénégal am uh-huh. yéen yéen a ngi wax ban injustice ngeen di wax man faruma fenn mais d'après mes observations ci laay waxee ne ñaari civil ñoo am problème uh-huh. lan moo ci indi war a génn ci mbedd mi taal yëfu jàmbur taal li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que boo taalee lu mel ni bus yi ak yooyu loolu alalu ñëpp la uh-huh. nga dem fekk magasin jàmbur bu ubbi di jaay ay téléphone am yooyu nga yàq ko loolu loolu pour lan la xanaa injustice boobu ngeen di wax da la yaakaar parce que man comprendre ma mhm. ah ñaari civil ñoo jotee mais fi ñu leen di àtte ku ne xam nañ ko nañ dem foofu seen avocat yi ku nekk sa avocat layal la mhm. ñu àtte leen mhm. mais lan moo ci indi war a génn ci mbedd mi désordre total bi am démb ndax seetlu ngeen ko ñun ñu nekk fii depuis ci biti di seetaan mais lu ñaaw lañu gis démb lu ñaaw lañ gis depuis man xaw ma kañ laa mës mësuma gis sax lu mel nii mësuma ko gis fenn Mhm. pour lan fa lañ teg lii ban injustice lañ teg Ousmane Sonko ba dëkk bi war a tàkk ban injustice lañ ko teg ban injustice lañ teg Ousmane Sonko ba Sénégal war di boy di tàkk sept heures ci suba ba minuit parce que am na sama benn xarit bu ne ma ba minuit maa ngi dégg ay lacrymogènes yuy tàkk entre parenthèse damay def benn parenthèse. Mhm. sama yaay dafa waroon na ñëw Dakar démb. Euh, pardon la quatorze pour defar ay bëñam dafa am rendez-vous dafa amoon rendez-vous. Mhm. mais bii date bi jotee mu ne du dem ndax Dakar ma ngay tàkk dakaar dafa dafa dafa dafa wóoluwul mag la parce que elle a euh, am na huit quatre-vingts ans. Uh-huh. mais c'est normal mu ragal. c'est normal mu ragal ñëw Dakar ndax ay bëñ ndax nee na Séné Dakar wóoratul mais pour lan mais imaginez loolu affaire bëñ rek la mais bu fekkoon cas bu grave la nag leneen lu grave la waroon am ci rendez-vous fu ñu koy uh-huh. waxee. Uh-huh. ndax benn nit boo xam ne bii benn nit la dem waxal loo xam ne xaw ma dëgg laam du dëgg au lieu ñu acté ji ko fenn déedéet yeneen Sénégal yi nga xam ne seen yoon nekk ci ñoo ciy souffrir xale yi seen jàng yi seen école yi tëj du ñu jàngi mais manque à gagner boobu kan moo koy fay ma ne nañ leen delloo suñu xel bu ñuy wax affaire injustice ah man sama yoon nekkul ci Ousmane Sonko sama yoon nekkul ci Macky Sall mais dëkk bi ñu bëgg a jël nii salfaañe ko boo xam ko moo dul yoon pour lan waa ñun ñi nga xam ne dañoo war a dem vaguer suñuy occupation keneen ak keneen noonu xale bi war a jàng léegi fu ñu koy teg ndax Ousmane Sonko moo tax yëpp war a taxaw pour lan nañ leen waxante dëgg xam nga nit ñi xam xam nga soo waxee dañ la fi nga far fee nga far ak yooyu faruma fenn de premières observations lii jaaduwul jaaduwul pour lan mais léegi imaginez euh, euh, euh, ambulance waroon jël malade këram war ko yóbbu yooyu yëpp kenn sóoraale wu ko ndax bëgg-bëgg Ousmane Sonko bëgg-bëgg Ousmane Sonko mooy lan dem damay dem procès xaw ma am naa preuve xaw ma amul preuve on s'en suñu yoon nekku si moom na sóoraale yeneen nit yi nga xam ne seen yoon nekkul ci loolu mu doon loolu mu joteeg mbay mbaam mbay ñaar ñun suñu yoon nekku si uh-huh. ba mu paralysé dëkk bi démb yëpp suñu yoon nekkul ci loolu pour lan mu paralysé dëkk bi yëpp après tout force de l'ordre yi du moom moo tax sax ñuy jóg mais pour protéger ñi nga xam ne seen yoon nekk si dañu war a jàng yi dañu war a jaay yi dañu war a dem liggéey yi dañ uh-huh. leen waxante dëgg d'accord ah d'accord mais mais lii lii war a jeex kañ la war a jël après soo waxee ñu ne Ousmane Sonko Ousmane Sonko mais on oh, na ma yàlla baal di jéggal ma sonn nañ trop waay sonn nañ trop kenn xamul foo mën a fooy waxee. Uh-huh. boutique yi tëj lépp tëj dëkk bi foo tourné gis saxaar fii gii mais loolu jar jël nguur jar na ko est-ce que loolu jël nguur jar na ko nga jéggi ci ay cadavre pour jëm toog ci palais ba à savoir yow boo toogee ci palais ba lan ngay def ah lan ngay def et puis après ma ma posé wu beneen question moom bu toogee ëllëg comment il va partager le gâteau. comment va se partage du ñan la war a dénk yenn poste yi parce que ñoom ñëpp ñu ngi ko ku nekk yaa ngi wax di def di def pour bëgg rek après sa poste ngay defaral poste ministre poste DG poste nangam nangam ah, ku nekk jug di wax mais lii lan lañ jël Sénégal yi def ko benn borse boo xam ne ku nekk da ngay tibbee fii di tibbee fii di tibbee fii je regrette beaucoup Abdou Diouf waroon fi nekk rek ba xam ndax lii dina am ah ñun ñu fekkee tuuti ci taawu Abdou Diouf xam nañ ne lii jaaduwul. Mhm. Macky Sall nag ñu ngi koy ñaan ne ko nañu protéger ñun ñun ñi nga xam ne suñu yoon nekkul te moom moo yor suñu sécurité nañu protéger. Mhm. ak lu mu ko war a jaral daf ñoo war a protéger. d'accord du dëgg du yoon. nga baal ma nag sama xol jeex na trop merci beaucoup. merci merci di ko sant di ko gërëm sunu soxna soosu sunu yaay ju baax loon doon wootee depuis euh, Suisse waaye nag moom. dafa mel ni fi mu fi mu comprendre wul que mooy du injustice la ñu bu ñu teg euh, Ousmane Sonko ñun la ñuy wax maanaam injustice bi askan wi gis euh, la ñu teg Ousmane Sonko moom la ñu doon waxtaanee waaye itam jox joxe na xalaatam ci euh, ni nga xamante ne effectivement ñi ñoo ngi koy def di manifester di yàq alalu jàmbur te dañ koy nangu ndax alal nit ki ngay yàq du usman Sonko moo ko liggéey du Macky moo ko liggéey nit ki ci boppam moo ko ñaafe am ko donc sooy manifester itam war nga ko ko mën a bàyyi donc li wax am na solo moom soxna soos ñoo ngi koy gërëm di ko ñaan saay su ko muy mënee itam muy dugg ci waxtaan wi ndax euh, itam ku nekk ak fi nga xalaatee ak loo mënti wax rek dañ la koy daal di euh, nangul